asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dala jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti boppu xibaar yi kilifa yi ñu dénk jëwriñ bi seetu wàllub dem ak dikk bi ñoom naka si jamono ji tëral nañ ay sarta jëmale ko naka ci wàllub yoon yi pour moto yoo xam ne naka ñooy dem ak dikk ci wàllub tali gi si matuwaay googu président bu General Transport Union nekk di liggéey ci ron ministre bu ñu dénk mbirub dem ak dikk bi moom naka gaaral na kàddum di wax ne am na yaakaar ne sarta gu es gu ñu tëral dina am naka ab yokkute ay kilifa yoo xam ne nag dañoo yëngu ci wàllu fajub tubaab gi ñoom ñu bayee bàyyeekoo si dëkku United States bi ñoo yegg si si biir réew bu Gambie bi matuwaay bi nag ñu jël ko pour gis nag jël nañ semaine gi jàppale nag ni ñoo xam ne ñoo am jafe-jafe ci wàllu bët ak itamit si wàllu bëñ. mbootaay bu ñu naan Turkish Cooperation and Coordination Agency ñu gën leen a xamee si TICA ñoom ñoo lëkkaloo ak Supreme Islamic Council ci altine bi ñu jënd nag ay dund pour gis nag jàppale nañ néew di doole si weeri koor gi ñu nekk. mbokk yi liye doonoon bopp xibaar yi ñu taxilu bu ñu dellu see yatal xibaar yi fi jot a am ci bëccëgub tey bi ëmpale wuñ ne nag fukki fan ak benn ci weer bu ñu nekk si atub 2022 bi ñu nekk banqaas boo xam ne nag moom la ñu dénk lu aju ci wàllu dem ak dikk bi maanaam mbirub yoon gi ñoom naka tëraloon nañ ab sata pour gis naka driver yi jëfandikoo nañ ko ngir gis naka yombal nañ jafe-jafe gu askan wi nekk di jànkuwanteel ci wàllu dem ak dikk bi sata bi naka mooy ne dañoo defar naka ab lansin pour bépp moto boo xam ne naka dafay daw place foofu rek la moo daw bu fekkee ne moto bi dañ ko defaral lansin xamal ko ne naka costero la moo daw moto bi bu rek la yem bu fekkee ne Brikama la ko Brikama la moo yem bu fekkee ne naka Serekunda la kooku Serekunda la moo yem ci waxtaan goo xam ne naka am nañ ko président bu General Transport Union bi moom naka mu am na yaakaar ne sattagu es googu dina indi naka ab yokkute ci wàllub dem dikk bi tamit naka dina wàññi jafe-jafe gu askan bi nekk di jànkuwanteel ci wàllub dem ak dikk bi satta gi naka ñu ngi ko commencé fukki fa ak benn ci weerub april atum 2022 te matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis ne yoon gi naka mbirub dem ak dikk bi yombal nañ ko ñu jàpp ko pour gis rek driver yi ñoom it naka nañ mën a yombal seenu mbirub liggéey bi tamit naka pour gis ne driver yi naka ak askan wi surtout ma ñoo xam ne naka ñoo dee jël moto yi déggoo nañ naka ci mbirub dem ak dikk bi ak tamit ci wàllu paas gi ci kàddu goo xam ne naka gaaral na ko ci buntu taseekaay xibaar yi ku ñu naan Lamine Ndiaye moom mu doon transport ministre spokesperson bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka commercial véhicule yi muy maanaam taxi yi dee daw ak i van yi si jamono ji saxta goo xam ne naka tëral nañ ko jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi na leen jàppale te naka ñu ngi ñaax moto yëpp pour naka ñu dem registre ci bureau ministère bi matuwaay bi tamit ñu ne jël nañ ko rek pour gis ne driver yi ñi xam ne ñooy daw ba ci Tipa garage dem ci diwaanu Brussi bi ba si Costoro dem tamit ba si Brikama dinañ doon ñoo xam ne naka seen mbir bi dem ak dikk bi duñ si am naka benn jafe-jafe ndax moto bu nekk da ngay xam naka diggante booy daw matuwaa bi tamit ñu ne ñu jël ko rek pour gis ne jàppalante nañ ak driver yi Omar Cissé moom mu doon président si General Transport Union bi ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne depuis bi ñu indee matuwaay gi ba tey driver yi naka ñu ngey dem benn benn di register te loolu naka am na ci yaakaar ne mbir mi naka dina doxee comme niñ ko buggee mu continué di wax ne si jamono ji naka process bi maanaam liggéey bi muy lansin goo xam ne naka ñu ngi koo defar driver yi bés bu nekk naka ñu ngi koy defar te am nañ yaakaar ne naka ci lu bañ a yàgg moo tax yëpp naka dinañ register Ansoumana Gassama moom mu doon nag route safety officer si ministre bu ñu dénk wàllum dem ak dikk bi moom ginnaaw doon gaaral kàddoom jëmale ko nag ci sarta gu ñu tëral es mu ne lii nag am na yaakaar ne dina doon mbir boo xam ne nag dina dem mu ne waaye nag ci commencement wo dañ la ne jox nag permit pour wane fu ñoo daw ak tamit fu ñoo yem mu ne moom nag mu ngi ñaax driver yi pour nag ñu dem ñu register si ministre bu ñu dénk wàllum dem ak dikk bi mu continué di wax ne tamit mu ngi ñaax driver yi pour nag ñu topp sarta goo xam ne nag nañ ko jëmale ko ci wàllum dem ak bi bi bu ñëwee naka ci biir réewu Gambie bi mu ne naka léeree wuñu mbir ne am nañ naka ab jafe-jafe jëmale ko nekk ci wàllub dem ak dikk bi waaye si jamono ji lu koy mën a saafaraal mooy ñun ñëpp naka ñu lëkkaloo ànd ci naka ab kilifa yi gis naka top nañ ci tànk ñi nga xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllub dem dikk bi mu ne Gambia Transport Union doon nañ baaxaas boo xam ne naka ñoom dañu taxaw pour gis ne naka nañ borom moto yi jàppale ñi nga xam ne naka ñooy driver yi jàppale tamit askan woo xam ne naka ñoo de dem ak a ñëw mu ne kon naka dafa am solo pour liggéey gu ñoo def nii ak itamit mbirub sarta gi ñu jaarale ko naka ci yoon gis ne nag waxtaanoo nañ naka diisoo jàppale wante naka pour gis ne yóbbu nañ ko ci kanam mu ne kon nag maa ngi ñaax préfet pour naka ñu registre ministre bi ñu dénk wàllub dem ak dikk bi liggéeyub nguur gi ak itamit liggéeyub yoon yi ñoom naka si jamono ji ñoom ñoo amee naka pamit goo xam ne boobu la ñoo defar naka pour gis ne defar nañ ko naka ci moto yi ngir gis ne naka moto bu nekk dina xam naka fu moo dem ñu ne naka pamit bii nii laajuñ si driver yi dara dara dañ leen koo defar free of charge te fekk naka duñ ko fay daran ñu ne naka driver yuñ koy defaral mooy driver yu dee daw diggante bi Banjul area bi ak itamit si West Coast region bi ci jamono ji nag kilifa yi ñu ngi lëkkaloo sànniwante loxo di ñaax driver pour naka ñu dem am naka ci lansin yii nii ñu ne naka si jamono ji ñu ngi ci lëkkaloo ak inspecteur général bu police ak itamit banqaas goo xam ne naka ñoo nekk ci wàllu trafic unit bi pour gis na naka bàyyi nañ xel moto yi ndax am nañ police bi ni ab ndéet bu fekkee ne naka moto bi amul pamit bi bu boobaa naka yow dañ la teg loxo ñu ne ginnaaw loolu ñu ngi ñaax naka driver yi pour ñu dem uti pamit bi ci num gën a gaawee yenn kilifa yu nekk di yëngu ci wàllu fajo tubaab gi te ñu bàyyeekoo si dëkk United States ñoom naka ñoo yegg si si biir réewu Gambie bi seen tànk naka mooy pour dimbale nit ñoo xam ne naka dañu am jafe ci wàllu bët ak itamit si wàllu bëñ matuwaay gi naka jël nañ ko pour gis naka jël nañ semaine gi pour jàppale askan bi naka ci fajub bët gi ak itamit si fajub bëñ gi kilifa yi naka bii doon na seenum ñaareel yoon ñu ngi bàyyeekoo ci dëkk United States bi du ñëw si biir réewu Gambie bi pour jàppale askan wi lu aju naka ci seen wàllu wér-gu-yaram bi seenum ñëw gu njëkk gi naka naka mu ngi xewoon si atu 2019 si jamono ji nga xam ne naka dëkk baa ngi jànkuwanteel mbasub coronavirus bi di yeneen feebar yi sew sewaan yi ñu ngi nëbbu mu tax naka si jamono ji kilifa yi naka ñoom ñu jël matuwaay bi pour ñëw naka ci biir réewu Gambie bi lëkkaloo ak ñi nga xam ne naka ñoo nekk di yëngu ci wàllu fajab tubaab gi pour jàppale doomi réewi Gambie nii lu aju ci seen wàllu feebar gi te fekk naka duñ ci fay dara team bi ñoom naka si jamono ji ñu ngi ci place bu ñu naan Gloria Baptist International School te mu nekk naka sa Bakau ñii naka ay noos lañ ak i docteur yu bàyyeekoo sa bitim réew pour jàppale askan wi. fajkatub tubaab yi nekk di yëngu ci wàllu fajub bëñ gi ñoom ci jamono ji ñu ngi lëkkaloo ak docteur yi ni pour gis nañ jàppale nañ naka li war a toll si fukk ak juróom-ñeent junni nit yu nekk di yeewoo ci biir réewub Gambie bi matuwaay bi naka dañ ko jël rek pour gis ne rataxal nañ diggante réewub Gambie bi ak United States bi rataxal tamit kóllëre gu nekk naka ci diggante ñaari réew yi United States si jamono ji naka ñoom ñu ngi jël matuwaay bi pour gis ne jàppale nañ naka dëkk yi lu aju ci seen wàllu wér-gu-yaram bi surtout ma naka bu ñëwee ci biir réewub Gambie siebie. Dr Frank moom mu doon team leader bu bàyyeekoo si dëkk bi United States bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne moom ak aana ndoom yi si jamono ji naka dañ nekk di wër àddina si pour jàppale naka doomi aadama yi mune ne naka te bokk na ci dëkkub Ukraine bi foofu nga xam ne naka si jamono ji ñu bari ñu ngey joytu seen mbiru wérgu yaram ndax naka fitna gu fa nekk mu ne bu ñëwee naka ci biir réewu Gambie bi lu toll naka si fanweeri nit ak ñett ci seenum ndaw ñoo fi nekk fukk ak ñett doon nañ ñoo xam ne naka ñoom ñoo bàyyeekoo United States mu ko wonte di wax toll naka si fukki doctors ñoom ñoo ñëw ñeenti dentiste muy ñi nga xam ne naka ñoo yëngu ci wàllu faju bëñ bi ñetti pharmaciste muy ñi nga xam ne naka ñooy yëngu ci wàllu garab gi ak juróom-ñaari nurse ak itamit ñi nga xam ne naka ñooy juróom-ñetti logistical support bi ñii naka ñoo nekk ci seenu timbi bi te matuwaay gi naka dañ ko jël rek pour gis ne jàppale dañ naka askan bi Pastor Bedwen Mendy moom naka ci nemmeeku mu def ñi nga xam ne naka ñoo bayee ko ci dëkkub United States rafetlu na naka matuwaay goo xam ne naka kilifa yi jël nañ ko pour ñëw naka ci biir réewu Gambie bi mu ne naka boo bàyyee xel li war a toll naka si ñaar fukki at ci atub ren bi banqaas bi naka ñu ngi continuer di jàppale naka réewu Gambie bi te lii naka ñu ngi ko commencé depuis si atub 2019 mu ne naka mu ngi rafetlu continuer goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di def ci lu ndimbal gi surtout ma naka si jamono ji xam ne réew maa ngi jànkuwanteel mbasub coronavirus bi mu ne boo bàyyi xel naka gejoon nañ fi depuis si atum 2019 te loolu naka lu ko waral mooy naka mbasub coronavirus bi li moom mu doonoon koo xam ne naka moo jàngal Pastor Badwa ginnaaw doon gaaral kàddu mu ne moom mu ngi rafetlu matuwaay gu mu jël pour bokk ci programme bi mu ne mu ngi jaajëfal team bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour bàyyeekoo ci dëkk bu sori ñëw naka ci biir réewu Gambie bi pour jàppale askan bu fi nekk ginnaaw doon gaaral kàddoom ci Mycube QTV bi ñi nga xam ne naka ñooy patient yi ñoom jaajëfal nañ naka docteur yi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour jàppale leen ñu ne naka lu aju ci wàllu wér-gu-yaram boo ko doolelee ab yokkute rek la moo isi bu ñëwee naka ci biir réewu Gambie bi si jamono ji naka team bi ñu ngi si Glora Baptist International School te mu nekk naka sa Bakau seenub liggéey bi naka free lañ ko nekk di def te it képp koo xam ne am ga naka feebar go mel noonu mun nga yegg sa foofu bu boobaa naka nañ la jàppale te fekk naka duñ la laaj dara mbootaay bu ñu naan Turkish Cooperation and Coordination ñu gën naa xamee si TICA ñoom ñoo lëkkaloo ak banxaasub Supreme Islamic Council bi ñu bu nag dimbal pour jàppale nag ñi nga xam ne ñooy néew di doole surtout ma nag bu ñëwee ci weeru koor gu ñu nekk matuwaay bi nag jël nañ ko pour jàppale rek ñi nga xam ne ñooy new di doole yu nekkee si Greater Banjul area bi ak itamit ñu nekkee sa West Coast region ndimbal gi nag mu ngi dem si ñaar téeméeri saako maalo sukur ak itamit ay bidon yi diwlin matuwaay bi nag council bi ñu ngi ko jël lëkkaloo si ak banxaasu ndimbal bu ko sa took yi dimbal ndimbal boobu nag ku ñu naan Cheikh Alhaji Essa Dabo moom doon président ci Gambia supreme islamic council bi moom rafetlu na matuwaay goo xam ne naka banxaasub tiika bi jël na ko naka pour jàppale néew di doole yu nekk ci biir réew mi mu ne mu ngee jaajëfal nguurub tooki bi ci ndimbal goo xam ne naka ñu ngi ko continuer di isi naka ci biir réewu Gambie bi surtout ma naka bu ñëwee ci wàllu wér-gu-yaram bi mbirum njàng mi ak itamit wàllu kaaraange bi tamit naka ñu ngi dugal seen loxo ci yeneen di banxaas yu bari yu nekk ci biir réew mi tamit naka ñu ngi di jàppale askan bi mu ne mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla moo leen mën a fay yena leen yàlla fay tamit naka mu gën a dégëral kóllëre gu nekk naka ci diggante ñaari réew mi mu kóote di wax naka yàlla dina jàppale képp ku jàppale néew di doole surtout ma naka boo leen jàppale ci wàllub dundoo tiika seen country coordinator bi moom ci wàllam ginnaaw lu gaar kàddoom mu ne moom naka mu ngi rafetlu matuwaay goo xam ne naka ñoom jël nañ ko ak bi dooleel goo xam ne naka am nañ ko pour yegg si biir réewu Gambie bi ngir jàppale naka ay junne ki téeméeri nit ñoo xam ne naka ay néew di doole leen mu ne te lii naka nekkoon di ko yemal rek ci biir réewu Gambie bi waaye naka ñu ngi ko tasaare ci biir àddina si yëpp naka mu continué di wax ne weer la goo xam ne naka gis nañ ne jullit ñi dañ si dee jàppale wante mu ne kon naka pour lëkkaloo ak bootaay yi gis na naka jàppale nañ askan bu fi nekk di yeewoo mbir la goo xam ne naka ñoom dañ koy màggal ci beneen boor bi mu continué di wax ne yokkute yoo xam ne naka tiikas ñu ko koo isi si biir réew mi bokk na ci naka ay ndimbal yoo xam ne mu ngi isi ab yokkute ci biir réew bu Gambie bi waaye naka ndimbal gu ñu mujj indi mooy dund goo xam ne naka isi nañ ko pour jàppale néew di doole te naka lu toll si téeméeri saako maalo téeméeri saako sukur ak i ay bidon yi diwlin dafaa dem naka ci banxaas boo xam ne boobu la ñu naan Gambia Federation of Disability mooy mbootaay yëpp ñi nga ne naka community. Lamin K Faty moom mu doon acting executive director bi ci banxaasub Gambia Federation of Disabled bi ginnaaw na gaaral kàddoom moom jaajëfal na banxaasub tooki bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour isin ndimbal gi mu ne ndimbal gi naka dafa ñëw ci waxtoom mu ne waaye laka mu ngi leen di dig ndimbal gi naka lu tax ñu isi ko nañ ko jëfandikoo naka ci anam bu buti képp koo xam ne raka yaa ngi bokk ci mbootaay bi di nga am naka ci ndimbal bii nii mu ne ñu ngi naka yeneen mbootaay yi ni yi benn bopp yi ak banxaasub ndimbal yi pour ñu min naka ñu jël matuwaay bi pour jàppale naka aji télé yu nekk ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi ñu ne mbootaay yi tiika bi dinañ joxe naka li war a toll si juróomi téeméeri saako maalo saako sukur ak bidon yi diwlin ci biir weeri koor bi te lii naka nañ ko tasaare ci néew di doole yu nekk ci biir réewub Gambie bi matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis dooleel nañ askan wi ci weeru koor gu ñu nekk mbokk yi ëmpale wuñ ne nag bu ñu jubloo ci korité bi at mu jot jaaykat yu nekk nag semence Serekunda bi dañ lay def nag li nga xam ne mooy wanteer mi wàññi nag seenum njëgu bagage yi ak i tamit gis nag jaay nañ ko ci njëg boo xam ne nag ñëpp dañ ci mën a jënd surtout ma nag bu ñëwee ci bagage yoo xam ne dañ koy soxla nag pour weeri koor bi muy ay piis ay dàll ak i dundu gi ci matuwaay googu nag suñu ndaw bi doxantu na sa marché bi pour waxtaan ak jaaykat yu fa nekk jëmale ko nag ci mbiru wanteer gi ci doxantu boo xam ne naka suñu ndaw bi def na ko sa marché Serekunda bi jigéen yu fa nekk di jaayee ñoom naka ñu ngey joytu ne wanteeru atu ren bi dafa yéex a commencé tamit naka njula gi nekkul di demee naka comme nu ñu ko bëggee njula gi naka mu ngi nekk di yéex melu ne naka at bu ñu passé ci ku ñu njëkk a waxtaanal muy Aysatu Kebe moom mu doon naka koo xam ne dafay jaay yire xale ak i dàll xale ci wanteer gi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne si jamono ji naka ñoom ñu ngi jaxle torop ndax naka wanteer gi mu ngi metti ci atu bi mu ne man ñëw ci marché fukki fan juróom ci weer bu ñu nekk mu ne naka lu ma jaay lu néew la te naka maa ngi oda maanaam maa ngi jënd ay yére sa bitim réew pour isi ko naka ci biir réew mi ngir jaay ko naka ci korite bi mu ne waaye naka business baa ngi dellu ginnaaw am naa yaakaar naka client yi dina ñëw fii balaa ñoo tëjee naka wanteer gi Jeena Baba moom min mu doon naka koo xam ne daf dee jaay yére xale ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne atub ren ji naka wanteerub korité bi naka ab dellu ginnaaw lañ ci nekk di am ndax wanteer bi naka nekkul di dem comme nu ñu ko bëggee client yi nekkuñ di jënd ndax naka ñu ngee joytu ne njëgu bagage yi naka dañoo yokk te loolu naka foog naa ne bokk na ci lu tax nekkuñ di am naka njartema mu kon ne di wax ni si jamono ji naka ñun bagage yu ñu jënd ñu ngi ko teg ni ci marché bi te ñun naka dañ koy jaayee ci nu ñuy amee dara bu fekkee ne naka askan waa ngee joytu ne dafa seer ba tax naka duñ ko mën a jënd ñun duñ ko mën a wàññi ndax naka luñ koy jaayee loolu lañ koy mën a jaayee mu konte di wax ne njëkk wuñ ko nekk di jaayee sax nekkuñ di ci am dara mu ne maa ngi ñaax naka kilifa yi pour ñu dëgg seen tànk ci mbir mi ni jàppale ñu jàppale ñu naka ci wàllum jula gi fii balaa weer bi naka di jeex aji jeen moom mu doon ab client ñu fekk ko naka ci bitig bi muy jëndal doomam yi yire ginnaaw da gaaral kàddam wax ne naka korite ren gii price bi naka dafa yokk maanaam njëg bi dafa yokk boo bàyyi xel naka ci at bu ñu passé njëg bi naka ci la gënoon a yomb mu ne waaye naka maa ngi sant yàlla maa ngi ñëw naka ci wanteer bi di mun a jënd naka lu ma bugal suma doom yi di ñibbi naka te naka dama ko bugg a def balaa marché bi naka di gën a xat waaye naka mu ne am na suma yeneen morom yoo xam ne naka ñu ngi joytu ndax xaalis bi naka amul mu nit ñi naka nekkuñ di am xaalis si atub ren bii nii mu ne moo tax naka marché bi métti mu ne boo bàyyee xel naka marché bi daf daan fees tepp ak nit mu ne waaye naka boo ñëwee ren da nga gis ne nit ñi naka bare wuñ Adja Minte moom it mu doon ab client ginnaaw loon ko aral kàddoom jëmale ko naka ci yokkuteem jógu bagaas yi mu ne boo bàyyee xel naka ci at bu ñu passé bagaas yi ñu ngi yomboon maanaam ñu ngi xaloon na yomb mu ne waaye naka atub ren bii bagaas yi naka dañu yokk mu ne at bu ñu passé moom mu ngi jëndoon naka daal lu toll si ñaar fukk ak juróomi téeméer mu ne waaye naka tey dañ laa wax ne naka juróomi téeméer wala lu ko ëpp mu ne lii naka dafa yokk bu baax te lii naka dina sonal ñu bari ñoo xam ne amuñu xaalis wanteer goo xam ne naka jaaykat yaa ngi koy def ci marché bi dafa am waxtu te naka bu waxtu bi jotee ñu bari naka dañ dee daw ci marché bi pour jëndee bagage yi naka ci num yombee waaye naka kilifa yi ubbite goo xam ne naka def nañ ko ci samedi bi bu ñëwee naka ci marché yi nekkee si KMC jaaykat yi naka ñu ngi joytu di wax ne naka dafa yéex tamit naka kiliyaan yi ñu ngi joytu di wax ni mbir mi naka dafa yokk ci atum ren bi waaye naka jaaykat yi ñu ngi am yaakaar ne naka wéccite dina am fii balaa ñoo duggee naka ci korite gi mbokk yi mu ngi noonu xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata léegi ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koli di la jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeen doog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam